commerçants, des douaniers, des transitaires, des journalistes, mais on est des consommateurs. de est des consommateurs. Donc, mais man, nous devons défendre les consommateurs. Il y a le gars là qui, qui défend, comment Le consommateur qui, qui, qui, qui consomme les, les, les, les consommateurs. Donc, lutte contre la vie chère, est-ce que DPI peut jouer, peut impact. ci dédouanement bi parce que douane dafa fixé ay barème am. xam nga man l' impertinence mooy mënuloo ne par exemple un conteneur divers fourre-tout da koy fayal un million six cent. quel est l' intérêt maintenant d'aller dire aux commerçants d'aller chercher une DPI yi. Hmm. mu fay la waat ko foofu frais vingt cinq mille parce que DPI yi ñetti fonction rek la am document de recevabilité document de domiciliation bancaire ak domi ak document de statistique annuelle état Sénégal war na xam en fin d' année. ñaar produit la ñu ñaata la ñu pour defi statistique am. loolu dëgg mooy njëriñu DPI mais le fait que on on, on rabaisse le montant de 1 million c' pour man je dama jàpp ne c' est pour aider une une structure qui s' appelle le GIE Orbit à plus s'enrichir sur le nombre et la quantité de DPI léegi nag moo tax on a demandé au niveau de l'OFNAC ñu defal ñu benn audit. kan moom moom Orbit ñan ak ko seet xaalis boobu ñan ak ñan a koy séddoo. loolu kese la. yónnee ngeen bataaxal OFNAC bi. dem na yàgg na. Ah, donc dem donc waaw daam ma la a laaj tuuti damaa déggoon yenn ci ay commerçant doon ko jàmbat moo di lu jëm ci xaalis bu takku bi dañ dañ koy bañ léegi ko a duggati mu ñu bëri di jàmbat loolu nu mu noonu mais loolu loolu du lu bees dafa mos exister xam nga dans tous les pays organisés du monde mhm. on n'accepte pas que waxuma la sax commerçant un individu ngay quitter territoire bi avec du liquide qui dépasse un million danga war a jaar par des domiciliations bancaires c' est tout à fait parce que l' état daf ciy gagné ay ay pourcentage banque bi da ciy am ay ay recettes am tey Birahim bu demee à l' mu commandé un conteneur de 40 pieds de de de, de mais dafa war a defar depuis avant muy dem la déclaration préalable pour l' importation accompagné ko ak ce qu'on appelle un document qu'on appelle l'autorisation de change boo demee si fournisseur jox la voilà jox la sa facture fournisseur da nga koy yónnee sa transitaire mu defal le DPI ak autorisation de change maintenant à partir de ta banque ta ta banque fait le bancaire mu am traçabilité loolu un état normal noonu lay fonctionner bañu ñu ko mhm. mais kii jógee Dubaï fay ba pare kii fay na 600000 fee fay fee 700000 fii fay fii 800000 dajale benn conteneur ba mat 40 bi mu ñëw nga di ko laaj DPI yi bañ dañ la amati xaalis bi dem na bu yàgg ça veut dire que ce document là ne sert qu'à benn structure boo xam ne dafay nekk uniquement pour pour emmagasiner ce sou. kii Orbis point Orbis voilà ba pare ñu créé waat Orbis Infinity. Orbis point sept net. mais xam nga daal mais la douane aide Orbis à s'enrichir de parce que su fekkee dafa wàccee montant bi de 1 million à 500 000 depuis dafay gën a bari depuis lu muy gën a bari Orbis di gën a encaisser xaalis. imaginez quatre cent cinq cent mille conteneurs l'année combien de depuis moo fay dugg. léegi loolu xaalis boobu la bëgg xam ak depuis infinité bi nga xam dañuy ñëw ko defee de la trente cinq mille francs plus grave hors TVA par conteneur kan moom moom structure yooyu l' état du Sénégal le ministre de l' économie et des finances la ñuy waxal. na ko saytu décret yi ñu leen di indil naa leen wéy waxtaan nañ ceeg acteur porteurs yi dañu am seen benn groupe de acteurs porteurs boo xam ne ñoo bokk parce que maa ngi woon ci investiture euh, Waly Diouf Bodian ah. au niveau du port. Hmm. parce que il a il a passé le témoin à à naan am nañ ay transfert yu fi nekk joxe tournée ñooñu ñoo représenté transfert yi non ñooñu représenté wu hmm. ñooñu ñoo ko représenté woon moom. parce que ba muy dem séminaire bu mujj bi daf leen yu yóbbaale jënd leen bii avion jox leen ay per diem yow mënoo xeex ay système bu nekk ci biir administration portière bi. compagnie de consignation yi nekk fi di def ay facturations yi exorbitant ah. ñu war ko toog saytu ko ministère de du commerce war a toog xool toutes ces ces compagnies euh, internationaux MSC MySline et tout ça di des facturations pour un conteneur qui va te coûter huit cent et quelques mille francs boo demee en Côte d'Ivoire ça te coûte même pas trois cent et quelques mille francs. Mm-hmm. ñu bàyyi loolu ñuy lekk alalu alalu nit ñi te kenn du ko fi des compagnies yoo xam ne da ngay am ak ñoom problème sur le solide sur le sur le statut moom la ñuy wax magasinage dix jours de franchise lañ lay may. Mm-hmm. facture le magasinage facture le sur le statut loolu boo ko xoolee li muy indi ci manne financière kan xamul te boo xoolee programme bi nga xam ne moom la état du Sénégal signé ak ses compagnies de consignation loo di fay magasinage ba pare di fay surestarie soit da ngay fay surestarie wala nga fay magasinage mais dañ naan ne lii borom bato bi moo ko moom lii compagnie bi moo ko moo ko moom donc nañu état de Sénégal ak le ministre parce que man li ma gëm mooy. nit mënul yor yëpp di la dóor ba ngay dem di négocier ak ñoom. bu njëkk ba transfert yi fi nekkoon. Mhm. ma daana rek transfert yi fi nekkoon. association yi dañ daan dem bu problème amee ñu dem au niveau de la douane toog ak douane yi yow lii la naqari kooku moo la ko teg. Mhm. kële yi yor yatam di la dóor dafa mën a régler sa problème. Mhm. douane démembrement wu ministère des finances la. ñun démembrement ministère des finances la ñu. parce que suñuy décret yi ñuy liggéeyee. ministère des finances moo koy bu ñu amee problème c' est le ministre qui doit nous départager. union des 37 patriotes nag chemin boobu lañu jël ce changement radical et systémique bi nga xam ne moo amoon au niveau du port ñu taxaw ci ñu jàppale la président de la république aussi ak son ak son premier ministre li nga xam ne dañ ko woote pour que dund gi wàññeeku lekk gi wàññeeku ñu jël ay ay ay surfacturation de certains euh, produits di koy yokkaat yi ci marchandise de telle sorte que day répercuté sur le